ba Times wër na Sénégal ba mel ni élection région département commune ñëpp a ko voté. festival yi nga xam ne mooy am par exemple ci yeneen dëkk yi ju euh, ci mel ne France yu ci mel ne aux États-Unis yu ci dem ne sax ci li nga xam ne mooy en Afrique fii. Euh, day am li nga xam ne moom mooy ay retombées yu muy génnal dëkk bi lu muy jariñ dëkk ba mais dañu rendre compte ne festival yi nga xam ne tey moom la ñu organisé mooy le groupe express tey njaareem gisu ci boppam gisu ci boppam parce que tey groupe la bi nga xam ne certes ñu ngi def ay pas yu am solo ci wàllu musique di ko def ñu ngi leen di xam mais dañu rendre li nga xam ne moom mooy euh, hommage dëkk bi nga xam ne moo tax ñu xam leen muy njaareem parce que c'est une très bonne chose mais tey di organiser festival tey xale yi ñoo ci dem jël seen ñetti téeméer ñii seen deux 2000 autorité yi aussi tamit di jël seen xaalis def te en revanche bu jeexee jeex na ñoom je pense que loolu la def bu jeexee jeex na gisuñu loo xam ne tey dëkk bi mi ngi ko ci jariñ ci dëkk bi parce que man mënuma concevoir man euh, nga def benn festival récolte des millions na euh, ne serait sax ñu teg fi benn studio boo xam ne tey xale yi ñi nga xam ne ñooy yëngu ci wàllu hip hop bi ñi nga xam ne ñooy yëngu ci wàllu mbalax mi sax euh, ñi nga xam ne ñooy ci wàllu culture kuy enregistré rek ku mu mënti doon mën nga fa dem dugg fa loolu mën nañ ko. mais organiser festival euh, encaisse yi des des million des million laay wax parce que tey. autorités yëpp dañ leen dem solliciter leen dañu dem suñ ku ci nekk di jël sa dërëm te aussi les autorités yooyu je pense du ma leen tamit bu leen joxe bu leen bu leen jox kenn bu leen jox kenn mais am na ci ñoo xam ne aussi tamit euh, am li nga xam ne mooy événement di di di ñëw ci ñoom te à moment donné duñ ko duñ leen duñ leen jox àq ji nga xam ne moo la laaj euh, leen war a jox te Diourbel ñun ñëpp a ko bokk pense qu'à un moment donné war nañu xoolaat encore une fois nan la ñuy defee li nga xam ne mooy festival te bu ñu defee festival bi nga xam ne eh, njaareem gën ci gis sa bopp parce que tey ji boo xoolee lu ci ëpp euh, ci ñoom la jëm lu ci ëpp aussi tamit ci côté média bi aussi tey je vis 2S ñoom ñooy ñëw di couvrir pourtant 2S ñu couvrir y a des télévisions yi nga xam ne tey ñi ngi nekk euh, nekk nekk fii yaa a des sites nga xam ne ñu ngi ci dëkk bi war nañoo ñëw tey jàppale leen jàppale leen li ñuy fay ñale ñu fay leen parce que li ñuy génn rek la ñuy génn de qualité te am na ci ñi nga xam ne ñu ngi nekk ay góorgóorlu di ko ci def mais duñ ko def dañuy solliciter ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk à l'extérieur voire ñoo ñu nekk à Dakar di ainsi de suite dijje ba fa lay jugee nga fay ko xaas ainsi de je pense que seen démarche bi ni ñu koy organiser il est temps que aussi Diourbel di ci gis seen bopp parce que turu Diourbel la ñuy joxe muy bala euh, Bawal challenge show pense que aussi à un moment c'est inadmissible à chaque fois bi mooy voir ay édition ñu koy organiser ba léegi gisuñu lu ci Jurbel jariñu 24 ba vingt quatre nga leen di dégg bu ñëwee dóor seen show récolter seen xaalis boo leen déggaatee voilà da leen fay indi leen te à un moment donné pourquoi pas euh, li nga xam ne moom mooy seen seen seen concert yi des fois ñu ñëw may waa Njaareem parce que am leen am ñëw fay waa Njaareem ñoom ñoo leen di supporter bu ñu xewlee Dakar ñooy dem bu album bi génnee ñoom ñoom ñoo koy nekk ci site internet yi ainsi de suite di partager voilà di jël seen challenge yi di voilà di ko tiitaroo parce que il est temps aussi ñu rendre hommage li nga xam ne mooy ce public là voire def benn concert bi nga xam ne day doon gratuit may ko waa Njaareem wala tey doomu Njaareem bu leen soxlaawee au lieu que tey ku nekk dakaar wala ku nekk fële par exemple à l'extérieur ñëw di leen soxla di leen fay bu leen doon fay 500000 doomu Njaareem bu leen soxlaa ne leen fay benn 100000 ñu jàppale ko dëkk bi nañ def dara man loolu laa leen di interpellé à ce que ñu def dara Njaareem parce que tey neex na euh, nga toog voilà di clash les politiciens nangam defuñu nangam defu dëkk bi mais yow ci boppam lan nga defal waa dëkk bi. Baol Times wër na Sénégal ba mel ni élection région département commune ñëpp ko voté